gis lii xam ne jigéenu département de Mbacké dañoo génn les authentiques du président Macky Sall dañoo génn parce que nag dañoo sonn ci buumum nooteel gi ñi buum madame Mbacké euh, yor sedaf muy këru jigéen ñi di ko xeexe jigéen ñi parce que nag dafa am lu am ba des woo nañu ne nañ jàppale Ndeye Saly Diop Dieng ministre ñu lànk ne ko ñun nous sommes Macky Sall président Macky Sall lañ doon jàppale démb ak barki démb mu wëlbatiku ne nañ ko jàppale parce que nguur gi mu ngi jeex président Macky Sall ak toogam wóoraatul moom moo ñu ko wax ñu ne ko ñun ay Macky Sall lañ tey ba suba bi mu xamee ne lànk nañ loolu ñu laaj ministre ministre dëggal loolu ne nañ ànd ak moom parce que président Macky Sall bu demee keneen kii wutu président Macky Sall su ñëwee dina ko mën a fal mu toogaat ci nguur gi continuer di continuer di di di di di mener ay activités financement yi nag moo waral lépp financement yi nag moom ministre bi mu ñëwee yëkkati Touba une femme un masque jigéen ñi dañoo boole lu ñu am ak lu ñu amul boole lu ñu mën ak lu ñu mënul génnee seeni dërëm ànd jàppale ko muy defar politique am ñu ànd jàppale ko te xam ne président daf ñoo ñor te xeex mbas mi ñor ñu ndax dafa wàcc te mu xam ne ñun ñëpp la engagé bi nu defee loolu balaa Touba une femme au masque jot madame Mbacke génn na ak ay magu yam ànd ak ñetti nit ñoo xamante ne si ñoo koy taggali maamam di ko sàmm mbayaanal ñi may wax xam nañ ko ñu ngi ci panel yi di wax lu leen neex dégg nga ànd na ak ñoom Kumba Seck ànd ak ñoom ñaana jeng ñoo xamante ne si ba ñuy liggéey ci parti bi dem ba barki démb newuñ fi président Macky Sall depuis ca dekkal ngor ga lañ nekk ak moom ak léegi defe naa ne ñun kanam yi taxaw ñu ànd ak sunu yaay Soda Dieng mii ànd ak madame Ndiaye Mariama Diallo président Macky Sall kooku kenn du ko wax yooyu jigéen mu ne ñooñu ñooy ñan financement yi def ñu cee joxul parce que nee na financement yi ñun liggéeyuñu e waay waay waay nañ wàcc ci teen yéen journaliste ngeen xool dañoo yor suñu place ñu ne petite moyenne entreprise la ñun dañoo yor suñu ay place toog lu mat 4 mois ñu kon financement yi su ñëwee su dee 80 pour cent yi nee nañ administration la 20 pour cent yi war na wàcc ci politique ah, bi mu wàccee dafa jël ay nitu boppam li ñuy wax bu ngeen ko saytoo yéen journaliste ngeen gis ko ñam ko jox yelloowuñ ko ministre financé na leen fi bu njëkk ñu jël ñu lekk bi nga xamante ne si nee nañ képp ku amoon financement lekk bokkoo ci yëf yi ñooñu dugal ñi dugal seeni doom ñii dugal seeni xarit ñii dugal seeni i seen i seen i rak nee na ñun fay ñu ñun on le dit haut et fort ñun mosuñoo jot financement état ñu yàgg di xeexal état kenn mosuñoo dégg ñu kaas parce que président Macky Sall daf ñoo ñor liggéey gi muy liggéey Sénégal ñor ñu ñu nekk ci ginnaawam. ministre de la femme nag jokkoon na ma moom parce que démb maa ngi jokkoo ak moom ay 2 heures du matin li mu wax mooy madame Mbaye Mariama madame Mbacké du moins Mariama Ndiaye moom lu mu def moo ko ko sant ce qui veut dire ka ñoom ñoo nekk ci yëfi ñun nag dañuy interpeller le président de la république Macky Sall parce que lii premier pas la moom li ñuy def mu ngi ci kanam dañuy continuer le combat continue li nu bokk te ñu war ñu cee boole ñu ciy boole jàmm ne boyi bu nu ci boole ta ñu bokk ci askan wi ndax nag ministre de la femme bi mu fi toogee société civile parti opposition parti au pouvoir ñëpp lañ cee bokk. est ce que du du xaw doy waar ministre bi jàmm mu ñëw fii. mu am problème parce que dem na Taïf mooy xam nañ ne liñ fi def injustice totale la jaarale ñu mbir mi ci yoon kumba am ndey ak kumba amul ndey la ndax lan wëlbatiku naan ñoon panelu Touba une femme un masque bi ku ca génn moom madame Mbacke je le dis haut et fort bu ma ko dafa ne ku ca génn ñu boole la ci financement yi ñu lànk des parce que ñun liggéey askan mi moo ñu ñor président Macky Sall moo ñu ñor liggéey la xam président dafa fonk jigéen président dimbali jigéen yërëm jigéen jàppale jigéen ñun nag taxaw nañ nag kër jigéen gii mu yor dinu ko xeexi moom madame Mbacke Mariama Ndiaye lu mu bax lu mu bax ñu ñeer ko na jóge fii parce que danoo sonn financement bu amee bokkuñu yéen jël ngeen ñun seen ay nit financement ñun Zahra Iyane ko jotuñ ci ñun jotuñ ci ñu ngi nii tan soo da mu ngi nii président Macky Sall madame Ndiaye Mariama Diallo bi muy xeexal président Macky Sall mu des gor di gar mi kenn masu koo dégg mu wax donc mu nga nee kenn boolewu ko ci dara kenn masu koo boole ci dara mu ngi nii toog kii président Macky Sall du ko xool ne kan la